muy lu jëm ci dëkk bi. muy lu jëm ci dëkk bi. te dara weesu ci lu defar dëkk bi. nu ko waay mën a gisee it. lu defar dëkk bi képp moo ci ak jubloon di ci yéeneem. ndax moom Cheikh Mountakha lépp lu mu digle. moom yéene wóor na ko ne lu baax la ci jublu ak yéene nit ñi kenn gisee lu lu baax. kon leena loolu yi na ngeen ko téye te jàpp ko te gisee kon ni mu ko gisee ak ni mu ko diglee te jàppale ko ca nag. mi ngi ñaan njabootam gii nga xam ne ñoo ne ci quartier bii kër baayam gii di Daaru Xuduus boo leen ko ci yeewoo. bu ñu fi accès bay liggéey. bu ñu accès ci ndigal sëñ Muntaxa ba di ko jëfee. ngeen bañ a xëccoo ñoom dara. Ah bu leen xëccoo ñoom dara. ndax kat lu baax doomu lu leen bëggal bëggal ko dëkk bi te ndigal it ndigalul borom dëkk bi lañ ci am. seen ndaw ñëw nañ sama kër. nee na Baye Fall yi sëñ mu sëñ Amdi ay ndawam ñëw nañ fi moom mii. xalif général Baye Fall moo leen yebal ñu ñëw sama kër. xalif général de Baye Fall yi yebal leen mu ñëw ba ci mu ñëw ba ci kanamam. nee na ñoom fekk ñu xoolawuñu ci ndigal lañ maam Cheikh ñooñu ne ko nun dañ Mbàkke ñu lay séeréer ndigal li nu sëriñ bi jox jógunu ngir xeex wala xuloo wala dóorante wala dàgg sax nun danoo xëy xëy rek sunu sang bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa woo sunu sëriñ muy xalifa bi jox ko ndigal lii ah moom it mu joxaat na ko noona loolee lan ko fas yéene jëfe na mu ko digalee te mooy ni ngeen nu ko digalee yéen kon nag sëñ baa ngi gën a ñaan yéen waa Daaru Xuduus bi mu jaboote boo leen ah na ngeen nooy népp bu leen doon lu dul res na ngeen fekk lañ bëgg lépp ñu fekk leen ci da ngeen seere ne lu baax dong dong la ci jublu yoon suñu yoon la dimbali mu ne sëriñ bi lam leen digal mooy lu baax rek ak lu ak lu yo ak yoon tëral ak lu baax ak lu leen di dimbali te xam na ne ñoom Baay yi yii la sëñ bi bëggee rek ko yokk duñ bi nee na mi leen di wax ne ba incha allah ci ashruna muharram gi mi ngi sàkku ngeen waajalaat ko bu baax muy guddi googu yi na nga xam ne mooy guddi gu mag gi.